asalaamaaleykum mbokk internet Iyat TV ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox uh, seen wàccuwaay daa mel ni suñu émission bu bu dimanche dañ ko dañ ko dañ ko mettre à l'avant parce que dimanche bi fekk na man <laughs> maa ngi si convalescence bi <laughs> maa ngeen maa ci beneen fànn <laughs> moo tax mu ñu woon jëf émission bi xam naa émission bu dimanche bi moom la ñuy rattrapé wu tey suñu invité fidèle euh, muy Sawolof ñu bàyyi mu nuyoo internet yi xam naa keroog parce que barkaati démb gars yi ñu ko doon laaj ci bëgg a wax ci direct bi mais daa bañ Sawolof nangul wax ci direct bi léegi ñuy xaar mu nuyoo internet IYAT euh, TV. salaamaaleykum mbokki IYAT maa ngi leen di nuyu di ñaan yàlla suñu borom mu yaatal suñu yi dënd leeral suñu laamin ba luñ ci wax ñu mën cee jëlee njëriñ bisimilah maa ngi lay déglu xam naa di la seet ak euh, liñ naan. <laughs> yow moom dangaa nekkoon convalescence an muus bu la rombee leex ba néew yi daa këpp diw xaw ma da ngaa këpp diw maa tan bu baax maa ngi yi daal laal nañ sa leex bi ban daal bi ma ko déggee keroog euh, fekk boobu maa ngi wan DKR 221 waa ñëw ne ma Moussa mu ne Iyat mu ne ko lan Moussa bi doo bu def est ce xam ngeen ne kooku su amee kum faral entre Sonko ko <laughs> ak ak ak Macky Sall Macky Sall la bu lay laaj ba nga tudd Macky Sall sax xel mi day jaxasoo. <laughs> mais ça moom loolu moom mun d' accord ak yow. Ah, parce que neexee doo d' accord. que parce que man wanuma leen loo xamante ah, ni. que Macky laa ah, faral. naa kër gi biir lëndëm may ma nga naan ma nangam nangam dama ne la. waaw su amee kenn man man nag ni may gisee nii damay damay jéem a maandu de. xam naa xaj na maanduwuma mais maandu rek laa bëgg a hmm. moo tax ma ne entre ko ak Macky Sall bu amee ku mu faral. waaw. xam nga néew ma da ngaa faral da nga cee faral kenn mais dama ne ah. bu amee koo faral ah. Macky Sall nga faral waaw heureusement faraluma kenn nag waaw waaw mais bu amee koo faral wala koo gën a jubu Macky Sall la te tey gis nga ko bi gaa yi laal laala ñu journaliste pro patriote yi <laughs> pro Macky yi lañ waaw mais seen patriote bi la c'est normal seen patriote la dañoo demoon ak fii ngay wax oh non waxuma sax waaye en fait dama ñëwoon bàyyi ma expliquer la parce que maa ngi dégg samay confrères ñu doon expliquer peut-être ma gëm koo leeral fii. en man dama ñëw euh, sama patron moom moo woor mu ne ma dafa am benn conférence de presse bu war am yeewi askan wi. Mm. mais daa mel ni dañ koo interdit. léegi man ma à ma man dama depuis ma jël oto ma ñëw may traversé depuis may traversé laa commencé lan lancer direct bi. Mm-hmm. léegi depuis ma lancer direct bi di génnee pied bi si sac bi di ko teg ci la ma ji fekk ma fa. mënuma pied bi boo ko tegee fi mu jaar fu ñaaw. ma ne ko yow eh, lu tax may saaga mu jaaral fu ñaaw ma fayu mu jaaraat ma fayu troisième fois ci la ma ne ku mu àndaloon mu koy ne carrément mu ne ma ana sa carte de presse may dem bay waaj a génne carte de presse waa ji mu koy ne carrément li nga bu ko dóor de. Mhm. t'as pas mu koy dóor. Mhm. léegi man moment bi ma doon génnee carte de presse waa ci la ma fëgg affaire bi. xam nga loolu mooy problème mu gis nga bu leen nit ñi di wax injustice ñu xeex ko. lu mel noonu mooy tax parce que bi ngay génnee sa kër yow jàppoon nga ne li ñuy wax ni yëpp ñu koy dal ci waa Pastef yi mm. wala ñeen ñi ñi ñuy toroxal yëpp da nga yaakaaroon ne du du du lu am daal dañ koy wax man nga ko sax bañ a gëm mais gis nga àdduna mm-hmm. ñun duñu ay bàyyi ma ay nit lañu ñu gisee injustice dañ ko war a combattre xam nga moom li ko bàyyi ci manifestation euh, il est pour encadrer manifestation bu ñu interdit wut mm-hmm. manifestant bi tamit moom mu ngi taxaw pour manifester même bu fekkee ne dafa laaj te autorisé te euh, euh, euh, ñu interdit ko même buñ ko interdit te teguñu motif parce que li yoon wax mooy préfé bi du waratoo interdit manifestation te amut trouble à l'ordre public te bu ko dee am nga man nga mën a ñàkk ay alkaati kon foofu lan nga ci gis te bu boobaa bu amul sañ nga ko maanaam boo defee déclaration rek yal na ci yow nga def ko bu la mm-hmm. préfet bi waxee te mu mën laa waxal ne la trouble day am. Mm-hmm. ba pare ne la awma alkaati yu doy ngeen ñëw keroog xam nga foo commencé samp nga fekk alkaati ñaar wax nga ko ñu ñëw ne la bu ko samp kon ñàkk fa. kon da xam ne lu dul yoon ñun ñëpp war a àndandoo di ko xeex que ça soit muy journaliste wala muy nangam parce que moom li ko may droit mu mën a taxaw di sàmm kaaraange mais loolu yow moo la fa bàyyi. pour nga taataanal nit ñi lan moo fa xew kon dangeen ngeen a war a respectante saaga kenn nag moo dul yoon man de dama bàyyi saaga man ku ma saaga bon pour man sama xelu bopp mooy tax du la saaga parce que man maa bëggatut a saaga mais boo ma saagaa de dinaa la wax luy tàkk te du fay man naa la wax loo xam ne saagaa ko gën a sedd en fait man mun naa ne peut-être suñu force de l'ordre yi parfois ñenn ñi du ñëpp ñenn ñi je que c'est manque de professionnalisme parce que mënuma comprendre weñ waa ji nu mu toll waa ji moo la ëpp doole waa ji moo la ëpp nu mu toll ak ni mu toll jëlul loxo lu dul weñ barre de fer mooy seen barrière yooyu xam nga loolu c'est de lâcheté lâche loolu affaire u lâcheté la parce que nit ki boo xoolee ne yaa doole mhm. ba pare am nga lu la lu la lu la lu la yiir parce que am nga tenue boo sol ba pare malgré loolu ngay ñëw di def violence ci moom pour loolu affaire u lâcheté la mhm. man du ma jóg ci du lu di ko dénoncer parce que man problème bi man sama yàllaa dogal man duma saaga man dama bàyyi saaga depuis 2008 te ñaanu ma yàlla nit saaga ma saaga yi gën a ñaaw ma taxaw di la ko delloo loolu ci man la parce que man ceddo laa mhm. mais nit mënut a taxaw ci àdduna wax ma ba du la wax sa xalaat man moo tax man foofu moom man nit taxaw na saaga ma ne ko sa ndey ngay saaga xam nga loolu sans voiture que dama ko saaga mais dama koy wax lu gën a metti ma ne ko dafa mel ni waar bi nga teg rek fi ne nii sa ndey nga jàkkaarlool moom ngay saaga mhm. parce que man yow nit laa sa da nga am ndey ma am baay ma am ndey ñu bokk fenn nu ñu def ba juddu ñoo ko bokk kon loo ci saaga lu ko raw sa ndey nga ko saaga mais problème bi mooy xam nga faaw ñu jàng respectante parce que fii nekkuñu ci nguur ci ak bokkeef la ñu nekk suñu nekkee ci bokkeef nag kenn ku nekk dañ ko war a respecté li nga xam ne moom mooy kii xam naa ñu dugg ci waxtaan laa mel ne tey man maa journaliste bi tey journaliste bi comme dañ ko ngàdd ba muy ay jole asa maa ko maa ko topp di ko eh. kii mais gis nga ko ni nga ñamee nii tey te gis nga ko far luñ ma saan a wax nii Macky Sall daara ko doon nangu ko ko gis nga ko tey li ngeen ko bàyyi bayal tey réew mi di am jaay doole moo taxit yow dal na dal na ci yow man de tafuma sama lex ba léegi maa ngi nii resté clean <laughs> d'accord léegi mën nañ dugg si sujet bi léegi maa ngi maa ngi maa ngi tane bu baax léegi léegi sa actualité ñu dugg ci actualité du sujet gis nañ semaine bu ñu jógee nii semaine bu xaw a tendue la les nerfs sont tendus comme disait que les nerfs sont très très tendus euh, depuis le barrière qu'on a enlevé la devant le devanture de Ousmane Sonko ba ñi jour bi ñuy récupérer barrière yi jour boobu daa mel ni dafa tawoon man sama jëm jël naa sama caméra dem fa def ay direct depuis ñu def fa direct gis nga nit ñi parce que man. Euh, parfois bu ñu nee carrément def nañ ni Fallou chaque fois loolu la loolu wax mu ne ma dégg naa lii mais demal nga vérifier bu baax ma dem ba vérifier mais gis naa enlevé nañ ko ba ñu jël jibi mooy son protocole carrément dind nañ barrière bi mais barrière woowu lu ñu ko dindee c'est pas un événement léegi ñu bàyyi Ousmane mu xaar heure bu mu war a wax dina wax heure bu mu war a jàkkaarloo ak euh, patriote yi dina jàkkaarloo ak moom bu ñu toog daa mel cinq jours lañ fi teg xaw ma quatre jours quatre jours la parce que si je me trompe te c'était le lundi ou le mardi le vendredi euh, président Ousmane Sonko dafa jógee këram di dem jumaa solon les di ñenn ni ñu ko waxee parce que j'étais pas là-bas mu ne dafa am benn alkaati moom la otoom paan ci bundu kër Sonko ci li ñu wax j'ai bien précisé selon les dits ñu ne alkaati la. otoom paan alkaati bu jigéen la otoom paan euh, buntu kër Sonko wala wetu kër buntu kër Sonko loolu la procureur wax waaw moo tax may la ñenn ñi doon lay balaa ñu ah, topp fii diffamation da ngay tudd ki ko wax balaa ñu may toppee fii moo la def ka mais li nga xas léegi yow Abdou Karim Diop bi muy def conférence de presse. yaa nga fa woon maayoon fa waa si si maayoon fa mu wax ba pare nga taxaw wala ñu kii. nga taxaw naa ne waaw d' accord ba tey waaw d' accord moo tax non mais xam nga dama ko généraliser. selon les dits déedéet doo ko généraliser. <laughs> waaw d' accord le procureur <laughs> de la République Abdou Karim Gueye moo en fait alkaati la mais ci lu mu wax mu ne loolu euh, prétexte la woon ci lu mu wax moom mu ne prétexte la woon. mais Ousmane Sonko dañ ko naroon jàpp yow lan mooy sa jàngat. bon ci jàppin bi ak jour même jour bi te de un li ma jaaxal c'est un jour férié. xam nga liy doy waar ci Sénégal. mooy mhm. ay ay autorités am. waaw ay kilifaam. Mhm. saa su nekk ñooy jeter des discrédits. ci mhm. institution yi. maanaam kenn yu Sénégal kilifa yi ko war a aar saa su nekk ñoo koy toroxal. ñoo koy waye di loo. loolu nga ciy jàngat commençant par lu waxi procureur bi loolu mu wax ba pare ci biir mu wax ci loo xam ne du dëgg mooy mhm. mu ne euh, Ousmane Sonko moo ne ku dee sa yaay juraat xam nga mhm. nit ak loo mën a mel ci àdduna mhm. man booy wax dëgg dama ne nangu ne da ngay wax dëgg mais boo dëgg dama naan waxu dëgg li mu wax loolu du dëgg Ousmane Sonko du noonu la ko waxee li ko waxee lim ñu bëgg a gëmloo Ousmane Sonko waxul loolu te nit war nga rawatina kilifa ba pare nga incarné suñu ay institution institution yi dañ ko war a protéger ba nga xam ne dara du ko màbb y compris bu fekkee ne ki koy incarné moo koy toroxal ñun dañu war a taxaw à que mu sàmm ko wala ñu wut keneen ku ko sàmm ku dul moom loolu mu wax dama koy dajji mooy loolu du dëgg Ousmane ko dane moo tax xale yaa ngi naan leen ku dee sa way jur juraat du ci am sax wala doonte du ci am sax xam nga eh, yàlla mi nu gëm mhm. laa ilaha boo ko waxee daq nga am amam gi maanaam tey su ma neexoon tey ma yàlla mhm. wax na ne kenn amut moom sax amut mhm. xam nga lu tax parce que damaa dindi ilallaa ji xam nga ñëw fekk laa ilaha ilallaa nga dindi ilallaa ji wax bi day daal di doonaan leneen loolu nag mooy li ñuy wax sos wala sof wala jaxase loolu kilif waru waru ko def leneen li mooy man li may gis mooy keroog civil la ñu amal affaire. Mhm. parce que ki taxaw identifié wul ba ñu xam ne ci alkaati la. Mhm. leneen li mooy du Ousmane Sonko moom moo dem kon nag moom bu ne prétexte la woon léegi kay wax ji bu rëy tam njëkk nga mooy yëfi maa tey la ñuy def. Mhm. xam nga tey dañu am bokkeef. bokkeef mooy li ñu bokk mooy république. kenn ku nekk mu am loo war a def kenn ku nekk waroo outrepasser say prérogatives. da nga war a def yoon doxal yoon penc mi mën a nekk ci jàmm hmm. mais buñ demee ba nit ki di wut di lal ay ndëgg sërëx pour ndëgg sërëxal lu toll nii eh, eh, bokkeef maam république ña ca nekk incarné ko di wut ay ndëgg sërëx di ko tegal nit ngir mu tàbbi ci ba nga mën a jot ci moom te yoon deful nga jàpp ko loolu dama yaakaar ne man loolu loolu rek avala ci wane ne ñun ñi ñu jiite xamuñu yan ñooy ñooñu ñan lan moo ñu jiite xamuñ ko daal man loolu laay wax parce que lu ruslu la ci Sénégal bu fekkee ne ay ay ay ay wax yu mu waxoon nga génne ko ci contexte am buñ ko waxee bu fekkoon ne moo ko wax lu teewoon nga jàpp ko ci booba ngay wane naan waaw fintol yi lañ ko jàpp kon daal Ousmane ko tey bu ma ko fekkee moom ci logiquement Ousmane Sonko depuis 2021 mu taxaw di woo nit ñi ci terroriste wala ci euh, insurrection nit ñi jóg di taal ñi dee sax maanaam mooy seize yi njëkkoon bu fekkoon Ousmane Sonko leen rey ci li mu woote nit ñee reyante seen biir ndax Ousmane Sonko li leen sant léegi kon moom non assistance en danger à des personnes qui en danger loolu la ñun waa Sénégal assisté wuñu parce que gis musiba am nga war ko dénoncé dénoncé woo ko wala nga gis musiba war koo fanq fanqoo ko kon ñoom ñi dee tey su dee Ousmane Sonko am na ci responsabilité benn ñoom am nañ ci responsabilité ñaar parce que mënoon nañ koo fànq ba kenn du dee kon ñu taxaw loolu dafay daal di làmb li nga xam ne ñooñu wax mu des nag mu des nag wax ji lu baree bari loo xam ne nit ñi dañuy nekk di constater rek mais da ngay dem ba da nga naan république dëgg dëgg nekkatuñ ci quoi loolu mooy li nga xam ne la sentiment boobu laa ci am jaaxaan nañu ba jàpp nit parce que li nit ñi doon wax naan mënuñ koo jàpp wala duñ ko jàpp foofu dañuy juum xam nga nit ñi bu ñuy wax diw man tey bu ma naan kenn du ma jàpp fan laa ko teg mooy du ma wax lu tax ñu ñuy jàpp jàpp waxuma defuma man luy tax ñu may jàpp parce que réew mi nag su fi ay agresseur nekkee ñu bon ne fi ay sàcckatu xaalis nekk fi ay ay defarkati phobie nekk fi ay taalkatu réew maanaam wax affaire crime ne fi nit bu taxawee ne seen cadavre yi la ñuy jaar pour amal euh, troisième candidature diw wala nit taxaw ne léegi loolu sax daa wax dañ leen jàpp yóbbu ba ci jigéen sànni leen jën yi nit taxaw dañoo war a rey diw nit taxaw nangam ak nangam su deful nangam réew mi dana tàkk dana def doom wala nangam ñooñu ñëpp nekk fi demoo jàppi leen mm-hmm. xanaa saa wolof moo xam ne moom mi ngi toog ci man nit du dégg mukk ma wax naka su dul naka dafa suñu sama jenn waay benn waay boo xam ne candidat daala sax nee na dañuy waxtaan sama benn dëkkandoo la dañ doon waxante dëgg mu wax ko dëgg mu mer ba fi ne du jaar sama tur jamono yële bi ñuy juboo dafa maawoo woo ne ma ci yow laa xamee ne ñi ñu jàpp ñëpp dañoo def dara. Mhm. ma ne ko lu tax mu ne ma damaa gis ne yow saa su nekk yaa ngi wax mais kenn jàpp la ma ne ko loolu de du ngóora parce que man dama jàpp ne bu fi ñuy jaar ak ñenn ñi euh, bañ a respecté seeni droit ñëw jaay leen doole ku ma ko defit mën maa jàpp mais ba ma jàppee et après boo ma tëjee et après même bu ma dee woon sax et mhm. après man yàllaa ma fi bind sama bakkan bi moom ma ko. yàlla mi ma bind moo ko fi moom wàcce ma ci kaw àdduna lim ma sant mooy wax dëgg parce que moom moo wax waxulil xaq min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur bi ma déggee aaye boobu dëgg dëgg dëgg wàcce ko ci sama làkk xam suñ borom lim ci wax ca laa noppalu moo tax sama bakkan bi yeeg sama euh, peex mi ku ko bëgg a gàllankoor su ko yàlla seetaanee sa affaire la yaag moom moo tax man man man may doxee ni may doxee dëggu daal xam naa ne mooy li gën ci àdduna du ragal gi ngay ragal yaa ngi nii bu fekkoon ne moytu gaa yi rek kay tax nga mucc sa lex bi tey kenn du gis nga ŋaaw sa lex. waaw ah, bu ngaa bàyyi sama lex yi léegi faaw ma koy wax quoi. waaw <laughs> ah, sama lex yi bu nga ko <laughs> en fait léegi ci lañ toog euh, en fait euh, muy communiquer muy mën naa ne point de presse la parce que c'est pas une conférence de presse depuis ñuy jour bi ñuy jàpp Sonko lan lañ ko jàppee ñu ne dafa am benn euh, gendarme. moo ñëw ba koñu Sonko xaw ma buntu kër Sonko ci la otoom paan ci la paan yore téléphone am selon s'est dit disait que non boobu avocat wu Sonko la ñu ne la dame laa gis nañ ko sax ak bracelet wu les patriotes gis nañ ko mu koy filmer ay yow lan mooy sa jàngat ci loolu man selon c'est pas une commentaire mais ni maanaam sama jàngat la man je pense que au-delà de sa gratuité son l'homme fort yaakaar na ce sont les gardes corps qui doivent gérer ngaa jàpp ne moo nangu. ci man sama xam-xam. waa déet mais xanaa dégluwoo Maître Ousseynou Fall. non man ma dégg dama lay waxaane la Sonko dafa doon dafa loyal maanaam da doon sàng ay garde corps sutura parce que même bu doon moo ko nangu gisoo lenn lu ko koy tere parce que image la moo ko moom ci boppam. te dafa am. sawara déggu dogguma la. non non non bàyyi ma ma xaaral xam naa suñu émission dina xam naa li ngay wax. dóor lekk bi indi na xam. xam naa ne fi ñu toll libéré naa la xam nga benn Sonko du moo nangu appareil dama lay teel a wax loolu. Mm-hmm. comme yow li nga doon wax jàpp ne. ora euh, ci li ñu wax waaw ak yi demee non Sonko du moo nangu appareil bi. parce que loolu sax yan wul maanaam Sonko dem di wax parce que ku am ku du lakk. Mm-hmm. waaw mënoo ànd ak sa ay garde corps yu dul jeex. ak fi ñu nekk yow boo doon dem di di ko nangu ji rek wala tey man ma da yow nag Sonko ñëw di ko saag ko Sonko di jëm ci man rek garde corps war nañ maa téere mais am na ñoo xam ne Sonko la ñu war a njëkkatee parce que loolu mooy sécurité am la ñuy mhm. sol mhm. bi fi solee euh, kii bi mooy bi biñ ko fi euh, kii tam doon forcé di dem am na fu mu yegg garde corps yi ñoo ne nag da taxaw te mhm. loolu seen droit la parce que ñoom dañu si signé te ak moom pour euh, nekk protection voilà pour sa sécurité quoi pour kaaraangeem kon ñoom duñ ko bàyyi muy def loolu dèjà loolu rek day dindi moo tax bi ñuy wax loolu naan ay dafa def nangam ak nangam loolu wax ko nit ñi ko xamul rek nga koy wax loolu kon da ngay gis ne kon amut dèjà ci mbir mi parce que teel nañ ko leeral léegi nag mu des nag jëmmi image nit ki lu tax nit war a taxaw di ko jël mhm. te amu ci droit boo nee ma gendarme la foofu civil la ko amal affaire parce que bu fekkee ne gendarme nga di def sa liggéey su fekkee ne da dem sax ba sa couverture parce que loolu bu fekkee dañuy wax ne daf ko def dafa sol njara Pastef wala mm. solul tani wala nangam dafay ñëw camouflé wu pour liggéey liggéey boo xam ne kii suñ laxasee xam ne yow la amatul sens kon foofu li ngay wax mooy euh, dem rëcc nooy noo nooy def wala boo ko bëggoon tey ñu jubla nga présenté wu ne gendarme la boo xam ne mu ngi nekk ci liggéeyam kon bu boobaa ñu xool ne gendarme la ñu amal affaire mais foofu civil la ñu amal affaire kon foofu da ngay gis ne moom la ñu tooñ beneen bi nag mooy koo xam ne yow tey li ñu giñ Sonko sàcc bu dee sàcc jël yëfi jàmbur mais ñoom ñoo ko njëkk a def image bi ngay jël jël yëfi jàmbur la loolu dangaa sàcc tey moom boo ma doon sàcc tey may défendre sama bopp di jël nangu li nga may sàcc mais man kenn du ñëw di ma euh, jàpp ne man damaa sàcc wala nanga parce que ma doon défendre sama bopp xam nga noonu la mbir mi demee beneen bi mooy ci côté image ñoom dañu yàgg nekk di tooñ Sonko mooy li Ibrahima Seck wax am na ñoo xam ne Sonko moo leen waroon a yóbbu ci yoon mais pas l'inverse xam nga nit ki nga ñëw di ko arrêté jël ko dugal ko ci voiture blindée ameel ko casque bu mu war a mën a sol comme yow nga bàyyi ko mu exposé woon noonu am na fu oto bi nu mu doon def rek boppa man na toj wala nangam beneen bi mu am image yoo xam ne man bi muy wàcc sax ci oto bi foofu bu doon boobu lañ génnee ma ne non am na benn waay boo xam ne ma nga fa sori filmer ko du leen ko giñ mais quand ci biir oto bi image boobu ñu amoon ci biir biñ koy indi Dakar këram ba pare mu teere ji ci situ daanaka compte fictif Anita Diop koo xam ne boo duggee ci biir xool historique bi doo gis nit koo xam ne physiquement kuy taxaw da ngay gis ne kuy làqatu la ku waxul lim doon loolu nag bu ñu demee ba affaire d'état di fa teere ci compte am loolu yaa problème man dama jàpp ne suñu amee suñu état ñun ñëpp Sénégal ñoo ko bokk tey dafa tudd Macky Sall ki nekk ci kaw di ko di ko di ko di ko di ko sàmm muy l'autre autorité muy président de la république mais suba mën naa tudd Ousmane Sonko amin wala gannaaw suba mën naa tudd keneen man naa tudd keneen kon man saa wolof sama bëgg-bëgg wala sama yëg wala li ma war mooy sàng sutura bokkeef googu ñu bokk état mais sàng sutura wala waggar ko nag dafay bokk ci bu fekkee même bu dee Macky Sall mi ko nekk ci kaw di ko incarné moo koy salfaañe dafa war a jot ma wax ko dëgg wax ko ne yaa ngi toroxal république bi yow yaa ngi salfaañe li nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu bokk muy ak bokkeef mooy dañ la teg ci kaw mais man institution boobu ñu la teg muy la présidence présidence de la république moom mooy institution pas Macky Sall ñu bëri da ngay dégg ñuy institutionnaliser ay nit amul benn nit bu fi nekk fii institution y compris de la république c' est l' autre autorité bu ñuy wax présidence présidence mooy institution institution boobu nag boo koy sàmm ba pare ñu xool ci biir te bi ngay waat nga waxoon ne waatoon wàcc ne da nga koo waggar da nga ko sàmm euh, ba nga xam ne spriculeusement saytu ko seetlu ko càmbar ko scrupuleusement tey bu ñu xoolee li nga xam ne moo nekk suñu dëkk mooy bépp sutura wala kiiraay loo xam ne suñu république bi amoon na tey daanaka ñu ne dañ ko def dung loolu mooy li nga xam ne moo am noonu ngay waxee noonu tey ci ci yu demee noonu ci laa ci ci euh, loolu rek laa ci mën a wax mooy dañu toroxal suñu république à ce point dama dem ba benn compte boo xam ne ci wàllu réseaux sociaux ñu koy wax ani Anita ñoom ñu koy woowee seen Chloé Obréa national ak yu demee noonu nga xam ne compilé vidéo bu rafet jaar yoon sax amu ko mënu ko kon foofu la ñu jël suñu république teg ko fa lan moo tax tey suñu ay ay ay jumtukaay yi nga xam ne tey moom la état war a jëfandikoo lu officiel fa lañ ko war a mën a yóbbu par écrit lépp loo xam ne fa lañ ko war a mën a yóbbu yóbbu ko RTS bu fekkee ne lu lu lu jaadu la ñuy dox mais da ngay dem ba ci benn compte fictif boo xam ne man mii sax sawaay jomb naa faa fësale samay mbir moom lañ fay dem di yóbbu nga ñëwati ci ministère de l'intérieur boo xam ne saa su nekk lu mu la wax daanaka waxam mën nga ne jarul dóor sa doom rido may ga la saa yu ñëwee wax dara nga mën a xool gis lu ko dindi démb nag bu démb bi mooy li ñuy wax euh, guddoo bi d'abord des bases dinañ ñëw bu démb bu démb dinañ ñëw te ngeen dinañ ñëw léegi depuis en fait euh, mandat dépôt moo gaaw le fait que ñu jëlee ko këram même pas quatre heures de temps dégg nañ Ousmane Sonko wala placé su mandat dépôt le garde à vue astafurlah wala ñu placé parce que fii lañ ko indi tribunal mais bac euh, mooy brigadier des affaires générales fa lañ ko indi woon euh, ñu auditionné ko parce que solon les auditions depuis ñu auditionné ko ba pare je pense que le lendemain la procureur def mooy conférence de presse daa ni moom déclaration daa ni moom mën naa defoon na Ousmane Sonko ba pare selon les li mu wax teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko les sept affaire différent loolu la teg si ci ci ndoddu njiitum Pastef bon xam nga euh, ku jàpp ne nguur foo xam ne lu ñuy posé suñu alalu Sénégal yëpp mu nekk six mille quatre cent onze virgule un milliard fa la nekk umpale woonu suñu FDS yi xarañ nañu suñu douane xarañ na suñu ay ay ay armée xarañ na justice noonu suñ demee ba maanaam bu ñu doon jàpp Ousmane Sonko mënuñ ko jàpp wala mënuñ ko audi auditionné wala nangam langam loolu dañuy jàpp ne kon bu boobaa nekkatuñ sax ci loo xam ne ak bokkeef la lu ñun ñëpp ñu bokk kon doole ji am na fi maanaam lu xam ne nii lu euh, violence légitime ñoom ñoo ko jagoo mais nag du nu la neex nga koy defee parce que dafa am yoon fi problème bi nekk nag mooy ànd ak yooyu yëpp nga am te yow boo bëggee jàpp nit mënoo koo jàpp ci yoon loolu yaa problème kon ñi ko incarné ñoo matut li ñu doon loolu mooy wax ci parce que nag réew mu am yoon da ngay dem ba la Seydina bakar waxoon ne ki gën a fii fiikum dafa doon wax ne ki gën a woom la ci yéen mooy ki gën a néew doole bu fekkee ne dafa joteeg nit fileeg ñuy dem ba euh, justice wane ne mucc na maanaam bu boobaa mooy ki gën a néew doole ci yéen su justice demee ba wax ci ki gën a néew doole ci yéen it moom mooy ki gën a am doole ba ba keroog fekk ñuy xam ne dafa tooñ kon da ngay gis ne un république euh, li ñuy wax ak bokkee suñ ci nekkee amul yaa ma ëppale wala da ngaa am sant wu ma sant wala nangam nangam ñëpp a war a yem devant la loi yow ak Amadou Sall doomu Macky Sall yéen a yem ci réew mi y compris sax bu sévère doon am sax ci moom la yoon war a gën a sévère parce que au moins baayam la ñu logé fenn di ko jox alal ju mu dundee amoo amul souci xaalis comme ni nga ko mën a amee yow kon bu teengal doon am sax ci moom la justice war a gën a mën a tey mais fii lan lañ gis contraire bi la ñu gis soo nekkee li ñuy wax kumba ndey ak kumba amul nday kon yooyu yëpp ñuy def gaaw geeg yooyu yëpp parce que dañu nekk ci ñoo xam ne dañu jiite ba pare di jëfeek moom jëfeek seenub noonu jëfeek ñoom koo xam ne nii dafa mel ni ku tekkiwut wala koo xam ne nii daf leen a rayal seen taaw wala yu demee noonu man na kañ laa leen doon euh, jaajëfal wala ma di leen nangam mooy fekkoon Ousmane Sonko tooñ ñu jaarale ko ci yoon gis nga bu boobaa bu fekkoon ne moo tooñ tey ci ñi gën a taxaw di dal ci kawam laa bokk mais lii ñu histoire wane yëpp bañ ko dalee seq ak moom bën na gën ñoo ko tooñ li ko dal rek mooy ay ay ayibam mooy bëgg réew képp du leneen bëgg réewam wane ko ci manière boo xam ne liggéeyal naa leen fukki at ak juróom mosuma lekk fukki dërëm wane ko foo xam ne di dénoncer sàcc parce que dafa am suñu alal joo xam ne 94 milliards commencent par Mamour Diallo Tahirou Sarr lii ko dal yépp ci foofu la jóge te loolu yépp li taxoon mu koy def réew moo taxoon kon li ma ko am na benn léebu ma ko déjee keroog rendre ko ci hommage ne ko xàndoor bu dammee ci waar wàcc na loolu mooy wàcc tëj nañ la de waaye tëj nañ ku leen gën ku leen ëpp jom ku leen ëpp fit ku leen ëpp euh, gën leen a bëgg réew kooku lañ tëj d'accord euh, depuis ñu mën laa dépôt ko euh, non depuis ñu garde à vue ñu teg ci week-end la tombe leen nit ñi xëy rek ñu mën laa dépôt ko ba pare lu si xaw a doy waar génnee ko ci mbir Ndakaaru Ndiaye yóbbu ko ba Sébikotane. bon yooyu yëpp du problème parce que boo xasee gis liñ fi ñu tàmbalee yii ci toppaat yëpp xam nga noonu wolof su jinax génnoon ba tëb dem bu beneen génnee duñ ñëwaat beneen jinax a ngi jeneen a ngi ne la ñuy wax rek wax ji yi ñuy waxaan yëpp jeneen la yooyu yëpp affaire u jaay doole mais def nañ ko ko gëm yàlla yàlla nag parfois dafay nattu nit ci xam nga tey Ousmane Sonko peut-être te li ma jàpp mooy mooy nekk ci e, juróomeelu njiitum réew bu toogee dina xam li ci kaso dina xam li li ci jaay doole xam nga suñu problème ak ki ne fi ki ne fii xamut lu ci kaso moom daanaka dàq ko lañ defoon mu yaakaar ne àdduna tukki na ba loolu moo ci la victimisé woo ba yegg si fii fii Sénégal yegg si ba mujj ko jiite mais kii nag bi yoon dañ ko tooñ ba ñëpp xam ne dañ ko tooñ ëllëg kooku bu taxawoon ci réew mi dina xam dina am yërmande parce que Abdoulaye noonu lañ ko defoon tëj ko jàpp ko jaay doole tëj ko kaso di ko persécuté di dal ci kawam wutoon ay nervi xam nga bu ñuy wax naan violence violence tey la tàmbali xamuñu xew parti socialiste ñoo mu neen ñoo amoon ay tontu makkut ay comité comité de bastonnage fu ñu jàpp ku leen contre maanaam koo xam ne PDS ngay yëngu ku àndut ak ñoom ñu koj la duma la ba nga mànti comme niñ la def rek biñ koy def noonu ba ba waa PDS maar ci ñoom it daal di wut ay calon bleu mooy def li ñuy wax gat sa biñ taxawaatee parce que dëkku fay dóore fayoo koy tas kooku noonu ñu jàpp ko di ko tëj lu ne nañ ko fi biñ ko tijjee tey lan la mag ñi daan wax nitu ay la nangam nangam te bi mu toogee gis nañ mooy président bi gën a bëgg jàmm ci Sénégal Abdoulaye Wade mooy seul président boo xam ne masute raje raje nit mooy ñeenti président yi am ñett ñëpp ku ci nekk raje nga tas nga organisation Abdoulaye da amul benn organisation bu mu fi mas a tas que sa soit muy daayira wala muy parti politique wala muy association amul benn bu Abdoulaye da tas te pourtant fii la nekkoon yu bare nga fi taxaw Macky Sall comme nii mu def teg ab Abdou Diouf tas na euh, Moustarchidine diin daayira Moustarchidine doon na ko jéem a tas euh, raje na fii nit ay policier Senghor raje na fii nit tëj na fi tas na fi parti PA yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen Abdoulaye Wade seul mooy koo xam ne def loolu moo tax te kooku fi ko jaarale xaaj na mu dajoon yu metti ak yu demee noonu moo tax bi ñëwee mu gën a am xolu yërmaande donte man sax jàpp naa ne yërmaande moom ñëpp ko war a am loolu laa ci mën a wax. d'accord lañ toog ñu teg ci fan. gis avocat mu bu jógee France kenn xamul fu mu jaar. Juan Branco ñoo xamante ne ñu ne par Gambie la jaar. boobu mu agsi Sénégal fii. na Sénégal waaw te xam nga temps yële xam nga parfois les gens les gens dañuy jéem a comparer les choses xam nga xam ko procureur moo lancé mandat d'arrêt xam nga mandat d'arrêt ça dépend procureur bu ko lancé il fallait que juge bi validé ko juge bu xam ne lii jar na validé wala jarul validé mënuñoo jaar bu ñuy jàmp Fran Branco mais d'une part tamit foofu naa ci xaw a taxaw man dama yaakaar ne. Euh, xaw na am benn tuuti complex envers nous parce que gis naa ji fi jaaxa ànd si li euh, Clédor lii non astafurlaay maître Bathily ak beneen avocat parce que Khourame Barango depuis muy ñëw euh, maître kii moo nekkoon ci ci devant devant les micro mooy kii. nu mu sax Bamba Cissé Bamba léegi depuis Bamba ñëw mu ne Khourame Barango il est où là mu ci ginnaaw xam naa après kii dafa ñëwul relevé wu. Euh, maître Bamba Cissé mu am benn jiixi. kan moo ñëwoon relevé maître Bamba Cissé euh, mooy kii nu mu tudd sax Demba Siré Demba Siré mu am benn jiixi jaaxa entre ñoom daa mel ni dafa xaw a am benn malentendu parce que barkaat yi dem ba sax beneen avocat mu ngi ko doon laaj ci question boobu mu ne non question boobu c'est calé on a déjà réglé bon. malentendu la woon quoi. non gis nga dangay wax dëgg ji mm-hmm. Demba Ciré li bu amee ko complexe moom moo complexe. Mm. xam complexe day ñaar infériorité ak supériorité nañ ko wax te dee xam nga nit ñi. Mm-hmm. xam nga man aw ma problème mu tubaab wala nangam nangam man du ma ñàkk ñàkk fayda gu ma tubaab di yabee. Mm-hmm. mais nag du ma xool tubaab ne tubaab la rek wala nangam duma koy parce que problème bi mooy déjà kii avocat la comme ñoom ñëw na bëggoon naa ñëw jamono ñu tëj ko mu ñett ñetti ba ñëw bi ñëwee mu bokk ci moom li ñu waroon a def mooy. noonu ñu def mooy may ko mu wax yow nag bu ci sa tàngee yow yaa am problème foofu dem Demba Ciré li moo am problème mais pas Bamba Cissé wala keneen ak keneen ak ju demee noonu fii ay avocat dañ fiy jógee dem di plaider feneen ak feneen suñ demee li ñuy njëkk a ci xam nga avocat dafay métier boo xam ne man man euh, bu ma doon doon ñaari métier yi nga xam ne moo ma gën a neex ci à part li ma doon nga xam ne ci wàllu euh, am njàng mu la koy may ak yooyu mooy avocat journaliste parce que foofu dama fay yëg liberté man pour man journaliste dafa am liberté avocat tamit noonu la mel dafa am liberté kon problème bi foofu ci problème bi boo koy seet seet ko ci côté euh, maître Demba Ciré Bathily ku ko respecté la mais keroog xeeb naa ko trop parce que problème bi mooy Juan Branco mu ñëw lu mu doonee sa problème li mu wax lan la ci sa problème nekkee ba ngay ñëw di wax ba mal entendement di am dañ ko sàng sutura rek parce que tey loolu la ñoom entre ñoom mais li mu doon def moom daf leen a yàq Juan Branco mu wax lan la Juan Branco mu wax dafay doole ci dossier ba pare ñoom ñëpp xam nañu ne li ma la wax sànq avocat doon na loo xam ne tey boo def nit ñi jóge nañ fii dem France layoo fa maître Ciré Clédor Ly fan yëpp nekk fi woon mi ngi woon Guinée avocat bu demee ci dëkk li muy njëkk def mooy dem ci baro bi maanaam dem ci seen kii boobu nu mu tëdd ci baro bi bato yi nuyoo bu ko defee ñu daal lay nuyoo léegi yu demee est-ce que moom def na lool kan non xam nga tey bu fekkee dafa ñëw Sénégal bi muy ñëw dafa làqatu parce que xam na ne bu ñëwoon gars yi dañ ko may ak yooyu am na loo xam ne xaju fi mm-hmm. mais yow foofu mu yegg si rek yow doyen nga kilifa nga danga ko war a xajal mais loolu muy def maanaam kan moo ci tuuti moom moom rek moo ci tuuti parce que problème bi mooy xam nga li ñuy wax euh, affaire yi complexe du rek ay ay ay man tey tubaab bu taxawoon tey euh, nga ñëw wax dara parce que man dangaa jàpp ne làkk bi moom wala jàpp ne avocat bi li muy tubaab wala nangam nangam loolu mën naa ko wax waaw mais Juan Branco question boobu posé wul soo dee mu doon euh, Guinéen wala muy Burkina bi wala muy ab Malgache du tee buñ ko interdire ci dëkk bi parce que dafa bëgg defendre défendre client su ñëwee dañ ko war a jox toogu mu wax ak yooyu pour man keroog bés bi naroon naa taaru met Demba Ciré moom pourtant wax na ñaar yoon jël na kàddu ba pare demaat gisaat daal di ñëwaat daal di waat ne lii défier naa bépp juriste wala benn nangam ku mën a dem nangam nangam pourtant mënoon nañ na ko wax nga ba pare moom moom moom bu doon day wax rek moom bu ñu xooloon foofu rek danañ ko wax moo tax yooyu ñuy def noonu pour man euh, ak doyee di la ci moom quoi loolu laa ko gisee mais après lépp mujj na rafet léegi nag mu des ci jëmmi xuwaan xam nga man sa seen yaat bi fi laa toogoon ngeen wax xuwaan ak euh, mandat d'arrêt bi ñu ko desere bi yéen a ma ko laajoon ma ne la xuwaan bu ñëwoon Sénégal jaar buntu présidence di dem sax ñemewuñ koo jàpp ba ngeen naan ma foo ko teg fii rek laa ko tegoon du ñëw na Sénégal xam nga keroog sax yéen ak ma doon jéem a vaar di jaay jonge naan Abdoulaye Cissé vaar nangam nangam ba ma tegal leen ci commentaire leen ci ne leen néew ma woon jàpp dellu ko jàpp tëje ma taxoon di wax mm-hmm. donte ne euh, kiiwu ma ci ràññatlewu ma ci nangam na parce que man jàpp jàpp tëj su koy décerner mandat d'arrêt dama ne leen xam nga dama ne leen mandat mooy nit ki ñëw Guinée Bissau wala mu nekk Gambie wala mu nekk feneen foofu bu fa duggee mandat d'arrêt nga ko laase mhm. da nga ko war a jàpp indi mhm. xam nga <clears throat> ma ne ko léegi damaa jëlale foofu bu ñëwoon biir Sénégal dox euh, buntu palais de la République sax duñ ko ñemee jàpp léegi l'histoire jox na ma dëgg wala jox ma dëgg mhm. xam nga ñëw na ba biir Sénégal xam nga rële ah waa mais ah kon ku nëbbatu mënuñ laa gis. sa dépend ça dépend fu mu ne. <laughs> kon Sénégal ñun ñun nag am nañ problème. non kon de non xam nga ñun. xam nga dëkk booy dëkk booy wax ne terroriste. Mhm. xam nga ñu fi wax waxu terroriste. Mhm. nañ bàyyi dëkk bi ñuy caaxaane gis mhm. nga Sénégal <clears throat> jàmm rek ka ñu jig bis bu fi terroriste amee woon bis bu fi amee ñu doyal yàlla bu fi am nag waaye bis bu fi terroriste amee ñu ñu doyal parce que frontière yoo xam ne moo gën a yaraax réewum may ga <laughs> maanaam génn ko la ci wax waaye dugg ko moom mën nga koo duggee fu nekk nga ñëw bu dugg ci biir Juan Branco ñu naan ministre ki Moussa Bocar Diam naan xaw ma dafa mas makk yeewu wala dafa nangam ak nangam ah bon kon foofu lay toll kon kon xam ne nit mën naa makk yeewu kon moo lay xamal ne ñuy teg yëpp di wax waxu terroriste ak affaire force occulte teg lépp du dëgg dara du ci dëgg parce que bu doon dëgg xam nga dama wax gars yi keroog benn wax boo xam ne xeetu artu la wax bi may wax artu la mooy dama ne organisation bu mel un euh, parti politique normalement constitué di euh, jébbale bilan annuel am li mu am ci xaalis def ay réunion réunion yooyu nga man koo infiltrer xam la fa nekk ak la fa dul nekk ñu am 16 ay 16 nga man leen faa fekk ci lu légal nga xëy tasaare leen ne tas nga ko boo yaakaaree ne tas nga ko tasoo ko parce que esprit la ñooñu nag bis boo demee ba li nga leen di giñ ñu doom ko man li ma gëm mooy waa Pastef ñoo gën a d'ailleurs sax ay patriote la ñuy wax seen bopp dafa loo xam ne sax àndut ak nekk euh, patriotisme moo tax fii ñu leen di puus bis bu nit ñi seetaanee bis bu kilifa yi réew mi seetaanee su ma naan kilifa yi réew mi nag j'interpelle les marabouts les seef coutumiers ak ñëpp ñoo xam ne am nañ baat ci dëkk bi bis bu ñu seetaanee ba liy continuer jàll ñu tas Pastef na leen wóor ne créer nañu ay monstre wala aw nañu yoonu créer ay monstre parce que tous les conditions bu boobaa sont réunies gis nga dëkk yu bëree bëree bëree bëri lan moo fa indi ay terrorisme parce que ay nit dañu dem jàngi ba ñëw am ambition war a mën a jiite dëkk bi war a ñu man a def ay entreprise nga xañ leen ko ñu seen savoir faire boobu ñu doog koy commencé di jëmale ci nu ñuy defaree bombe wala explosif wala nu ñuy defaree nu ñu la renversé wala nangam ak nangam pourtant boo leen bàyyi woon ci démocratiquement xam nga lu tax Sénégal boobu ba léegi amul coup bi ñuy def ay coup d'état boobu senegal ñi ngi duggoon ci multipartisme euh, euh, ba pare par première partie opposition normalement ni ci Afrique wala ma bu ma ju bu ma bu ma bañee juum ne Afrique gépp waaye ma ne la ci Afrique de l'Ouest dig-digal bi mennam Sénégal képp moo ko fi am mooy première partie politique bu ñu reconnaître s'appelle PDS Parti démocratique sénégalais moment boobu bi ko Abdoulaye du fexee ba nax sengoor ba mu may ko ko ba mu def ko nangu ko yeneen moroom yi chef de l'état africain yi dañoo ne Senghor lii ngay nangu mooy lan yow yaa ñu nar a jeexal suñ nguur mu ne je préfère ñu daaneel ma ci ay carte que ñu di ma daanee par des armes kon xam nga ne démocratie dafay tax maanaam xeex du am kenn du am raison wu taxaw di wax léegi nag boo demee nag yow ba tas ay nit ak yooyu yaa leen buux ci clandestinité te boo xasee ba dugg ci clandestinité lu ne xaj na fa yaa ay certaines personnes yoo xam ne ci niñ leen yare du ñu mës a xalaat ci àdduna taal wala ñu sànni man mii di wax ak yow amul benn manifestation boo xam ne mas naa koo fekke ànd ak wér yaram te participer wu ma ci mosuma sànni xooxu duulu bay sax mosuma koo sànni waxantuma la ak di sànni xeer fàttalikuuma man saa wolof parce que damay baña a fen fu ma mas a jëlee xeer sànni te pourtant damay participer ci manifestation dañuy dàq ma replier masuma taal te fay naa taal ba tàyyi nekk naa ci manifestation ay nit bëgg a taal ma tee nekk naa ci manifestation bu ma juumut ay dama xamatul 2016 la wala yu demee noonu ay nit kar boori faas fii ci deux fois faas yi kar benn biis dem dikk ba nar taal bay wàcce nit ñi pour nit ñi génn ma taxaw nii biñ taxawee naroon na dugg buñ ma gisoon dañ ma jàpp waa biis bi ñoom ñoo mujj làkk ma kan la kan la ñu ne ko wàcc nañ parce que lan lañ xam dañu xamoon ne kii moo tee nit ñi wàcce ñu wala nangam nangam waa ji xool-xool ba mu yàgg xamul kenn ku muy jàpp après mu daal di dem man lii def naa ko pour temps loolu wa du tax nag ma taxaw kenn di blâmer kenn man du kuy xaar may taxaw fii di blâmer naan diw bul bul bul bul bul manifester bul def nii wala bul feeñ sa naqar sama yoon nekkul ci loolu parce que damay wax ne nit ki mënoo jàpp nit ñi persécuter leen jël seeni dignité ba pare taxaw ne duñ ko jooy mënta nekk man bu may wax damay wax ki nga xam ne moom moo fexe ba Sénégal dugg fii parce que Sénégal gu bëri jàmm gi ñu nekk demoon ba ñu intégré fii ay brassard rouge nekk am lu la naqari nga ah, takk brassard rouge nit taxaw yëg boppam tax mu mën a taxaw ne man du ma gis lu xonq ku dul gis lu xonq lan ngay gis ay bis yuñ taal nangam ak nangam affaire yooyu ba pare mooy liñ bëgg sax dafa mel ni mooy bëgg dafa nga mel ni boo koy seet day mel dañuy bëgg kaawu am ci réew mi ba ñu am prétexte comme ni ñu amee prétexte li ñu wax ne prétexte la woon pour ñu sàcc téléphone Ousmane Sonko bi ñu doon wax naan moo ko sàcc prétexte la kon est-ce que tey fii tous les conditions sont nii pour que ñu def benn prétexte boo xam ne dañuy bëgg a aj euh, élection yi wala dañuy bëgg defaat yeneen beneen mandat wala dañuy bëgg a defaat beneen deux ans wala nangam nangam yàlla xam parce que buñ ko xasee ñam mu neex ñii ci opposition bi war a mën a taxaw bañ ne pat bàyyi Ousmane Sonko mu wéet ci xare bi bis bu Macky Sall xamoon ne bi mu jàppee Ousmane Sonko après nii la ñuy def day jékki-jékki xam ne nit ko am fit taxawatul ci opposition bi fi ñu toll lu ko neex lay def su ko neexaatee wàññikuwaat ne damay présenté wu wala mu ne dëkk bi daa am pëccaxoo gisuma fii ci classe politique bi ñoo xam ne nii danañ taxaw di ko te man saa wolof nit ku am fitu man ceddo laa nit ku am fit ma topp ku am yaakaar ne danaa topp sa ginnaaw te wane woo lu ko jar comme Ousmane Sonko amul dama lay siba topp loolu moo fi nekk. d'accord euh, ñu gis démb am bis bu ñu sànni koftal mu ñu ne dafa may ay yu jóge ci koñ bi sànni ci koftal mu la bi ñoo xamante ne ñu ne ancien policier la moo nekkoon ci wàllam bi gars jël photo yi comparé ko ak commandant wu El te El Hadj moom commandant moo nekk fële mooy commissaire moo nekk euh, central si je me trompe pas moo nekkoon fii point E parce que man moment bi may defar sama passeport point e léegi dañ ko bëgg a comparer je sais pas xam ban njàngat nga am ci loolu. noo man ak déclaration non man man man li nga wax nii du ma ci dugg man li may wax mooy. Mhm. ki ñu ne mooy témoin oculaire muy sëfoor bi li mu wax moo yanuwul maanaa parce que ay nit dañoo ñëw. jël machine leen ñu téye flamme bi ñaata temps la cocktail molotov boo xasee taal flamme dafa am moment bu muy am say loxo sinon say loxo lay éclater loolu benn la beneen bi ñu sànni la ko wane na futt futtam ci tànk xaw ma fu mu lijjantee futt futtam <laughs> wala nangam nangam mais loolu yayuma cocktail molotov ay flamme la yore du futtu tànk day lakk tànk xam nga futtu tànk lan moo koy def mm. lakk-lakk boo xam ne maanaam tàkkul maanaam tey loo xam dafa tàng jër tege sa tànk mën naa dem teg mais fii mu tege tey ci tostanam bi maa ngi koy xool ci image bi ne mm. lee bu waree am tubay ji nga sol anamu fu mu nekk jiin la sol dañu waxante dëgg gis nga euh, bu wax dofee nopp yi koy dégg war a wér lii mu wax yenuwul maanaa ba noppi nga ne mu sànni affaire yi ci 16 fi mu toog ci bunt bi mais tata ñaari buntu lay am ana beneen buntu bi nga ne mu tàkk bi mu tàkkee ñu dugg ci biir di jël ay téléphone u jàmbur ak xaalis waaw biis bu tàkk hmm. ba nit ñi ku nekk di wuti foo jëm nan la nit mën a toogee xam nga ëldëb moom buñ koy def lenn moo am dangay ñëw yéeg biis bi jékki-jékki génnee sa arme ku yëngu ma nangamtaan sa ndey ngay wax aca andi leen li ngeen yore gars yi di jël li ngeen yore ñoo la koy génneel di la ko jox waaye ni mu waxee tey bis buy tàkk ngay taxaw di récupérer ay téléphone jàmbur moment booba ñooña danañ nekk ci benn panique boo xam ne yow mii dugg sax di leen eh, nangam ak nangam eh, duñ la tal wala booy wax say menace parce que menace moom bi gën a rëy la nit ki di jàpp te mënoo sotti ba mbir mii mi sëlsëli di tàkk bañ ne la ñaari nit lakk ba calciné ci noonu ba mënuñ leen a xàmmee ngay taxaw di wax receveur bi xanaa moo gën a dee li bis bi xat xat cabine ba muy dugg moo gën a xat fuuf mu mën a génn taxaw xam man journaliste yi laay xaw a xeeb li ñuy def ñooñ ci mm-hmm. mën a dim am na ci nag ñu ci laaj laaj yu intelligent mm-hmm. na ko ci laaj ne ko euh, lawyer mu ne ko sama versement ñaari fan yi yëpp ñaari fan ñaata la mu ne 30 million ba mu yàgg mu ne 30 mille génne ay 1000 francs yu làkk xam nga dil day set man néewu sax bul buñ caaxaan bu ñu formé formé formaté ay affaire wala dajalaatu ay affaire pour teg ko mais bu lu toll ni état boo demee bay teg dil cuune gi daloon ci jàppal nga moo ko teg dil non man dama ne lu toll ni état suñ demee ba dara di am lu ñuy xiiri xaar parce li ma gëm mooy monde bi yëpp ñëpp a yam ci état yu baree baree bare 70 pour cent ci ñu nekk ci lu dul dëgg la mais au moins mu xaw a set ku mel ni man lee dafa dafa dafa dafa dafa cere ci man daal cere càq cere càq la ci man. maa ngi parce que maa ngi jot benn information si sama benn confrère bàyyi ma lire ko pour les internautes de IYAT mu ne les les les victimes sont arrivées au bord de 16 heures ça correspondant à l'heure de descente une fourgonnette des sapeur qui les a transportés pour les âgés étaient vieux de 60 63 ans et il avait brûlé d'une surface corporelle aux environs de 14 pour cent la moyenne d'âge des des est fille de 11 ans. Elle précise sur place, les blessés ont reçu leur pansement avec quelques heures, quelques heures d'observation. Ils sont retournés rentrer 16 heures au, au, au, la soirée. Votre identité de blessé, Babacar Balde, 35 ans, Modou Gueye, 60 ans, Fatmata Fall, 63 euh, ans, Khalifa. Moussa angul affaire yi fi mu toll nii parce que affaire bi en temps. Mhm. yéen ay journaliste ngeen. Mhm. gis nga bu affaire amee. Mhm. accident bu amee. xam nga lu ku fay njëkk. su njëksee. police day ñëw sapeur pompier day ñëw. sapeur pompier def liggéeyam journaliste def liggéeyam. gis nga yi war a réunir pour ñu gëm lii moo réunir lii ay tappale la. kenn mënu koo def sama bopp man xam nga la laa bëgg nit ñi respecté ma ba buñ may wax di ma wax lu man a dégg man bu ma déggee lu dul dëgg damay taxaw ne du dëgg. Antoine mhm. Diome man la mu waxoon ca Élise ba taggoon ndaw si. Mhm. waxam jooju sax laay gën a gëm donte ne loolu laa gën a gëm ne moo gën a impossible. Mm, d'accord que lii gis nga wax day yanu maanaa. Mm. man li ma jàpp tey mooy bu ñu demee bay wax terroriste. Mhm. parce que psychose lay indi ci doomu aadama yi. Mm. maanaam tey li muy yàq mooy kenn dootul gisati tata ba wóolu ko xam nga tey bu doon tey li ñuy wax moom la mooy ay terroriste ñaata yoon la manifestant am te nii la ñuy rombee tata yi duñ leen faale. Dakar Dem Dikk mooy gën a nekk cible loolu dèjà benn la donte nag teewul sax mënoon naa nekk mais damay wax li nga xam ne moo koy dindi mais li sëfoor bi wax xam nga man waxu sëfoor bi rek laay wax ci ne ci ngay xam ne lii ay fen la pour mu wax la li sëfoor bi wax boo ko dégloo da ngay xam ne lii ay fen la gën a jege ni dëgg dañ te dëgg ay nit ñëw taxaw nekk ay ay ay ay ay ay set nangam nangam li ñu njëkkoon a wax ma loolu comme génnewul ci gémmiñam li génne ci gémmiñam laa wax nee na ñu sànni benn grenade lacrymogène fi mu nekk moom la tàkk-tàkk bi nekk ci ci moom ñeneen ñi duñ daw génn xanaa yoroo ñaari bunt buñ dawee génn ñaari bunt xanaa ñi nga xam ne maanaam ay ay ay kii lañ sur le sang xam nga temps bi boo xoolee le temps parce que bu benn affaire amee day am crime day am ab mobile di crime maanaam li ñuy wax ak xiir mooy ki crime bi di profité lan moo tax lan nga ci jublu problème boobu nag li ci jublu mooy nit mën naa nekk militant Pastef comme liñ bëgg ñëw jëm fa am yéene taal biis wala nangam nangam mais nag manifestant yi nag ak loo leen mën a waxal ñi Sénégal ba Sénégal bim mu sampee njaay ba nëgëni su manifestant di am danañ taal biis de danañ nangam mais nit ñi wàcc leen la ñuy wax jël dara ñëw sànni ko ci biir nit ñi loolu c'est pas sénégalais sénégalais mësut a xam loolu kon tey ki ñu wax ne dafa dee ci nangam nangam ñoom pour fi ñu toll nii kum neex tey pour nga teg benn affaire pour rafetal ko mi ngi mel ni yow rek tey man ma ñëw jël nga nekk journaliste. ma ne la waxeel ma nii waxeel ma nii waxeel ma nii parce que information bi génn na kenn gëmu ko loolu mooy li nga xam ne moo nekk. man xooluma naan waa ji policier la wala fee la nekk ak wala nangam nangam man jëmmi waa laay wax li mu wax moo wul maanaa li mu wax moo tungoomut solo. ni mu ko waxee mënul nekk lu mënul nekk mënul nekk man nag bu ma xasee xam ne li mu mën a mën a nekk mënul nekk ay fen mën na cee am damay commencé introsé wu xam nga buñ ñu tegee affaire bi mën nañoo jàpp ne le mobile mooy man ma nekk Pastef nga tëj Ousmane Sonko man ma dem di taal bis nangam nangam léegi mën naa ñëwaat nag retourné waat ko contre ñoom nekkoon mbaadu dañ koo taal pour giñ ko waa Pastef te loolu lay gën a niru ba fi mu ne nii loolu lay gën a niru loolu nag bu amee lu garaaw la parce que kon mooy li ma yàgg wax rek mooy Sénégal ñoru leen dañu bëgg sénégalais yi maanaam tiit seen biir ñu jaxase jàpp ay nit ñi leen ñii ñoo def nangam te fekk loolu du dëkk te fekk yaa ko def man nag loolu laa dul nangul kenn moo tax xaw man lu may lu may rêvé Sénégal boo xam ne te man li may njëkk a wax man saa wolof se réclame la démission immédiate de Antoine Félix Diome saa su nekk buy gérer crise yu mel nii bu amee lim ñu ciy wax lu ci ëpp su ma ko xoolee ba ca ba ca biir du méngoog dëgg te kilifa dafa war di ma wax dëgg suñu institution yi dañ koo war a sàmm institution yi nag ki ko war a njëkk a sàmm mooy autorité bi koy incarné institution bu toll ni ministère de l'intérieur institution bu toll ni suñu ay FDS nga dema dema dem xam nga Sénégal gi rek ngay gis nit nekk docteur assermenté def certificat médical sukkandiku wuñ ci pour def enquête teg ko na le ñoom ñi ngi commencé di Euh, wayadiloo suñu ay institution tey dema dema dem ba tey bu la police waxee yeneen see seen yoo xam ne ñu ngi ci bit wane affaire yi xam ne lii du dëgg wane ne kii nervi la wane ne kii moog ñi ñoo àndoon léegi yooyu yëpp ñu koy gis ñu dema dem kon ba ne li gën a jiite xam nga lu dara gënuta euh, fort lu ñuy wax intérieur maanaam jëwriñ ji nga xam ne moo jiite wàllu intérieur suñu sécurité ci yow la nekk suñ demee ba suñu sécurité léegi ñi ko jiite dañoo jàpp ne lu ñu wax du dëgg xoolal loolu lu mu mën a yàq ci àdduna kon problème bi mooy Macky Sall li ñu koy wax mooy na limoger Antoine Félix Diome wala mu laaj ko démission parce que ñàkkul ñeneen ñoo xam ne war na leen mën a far parce que koo xam ne tey loo wax man de saa wolof man amatul lu Antoine Félix Diome di wax lu may gëm vraiment parce que nag man xel laa yore ci samam xel li may xalaat yi ma wan yëpp gawuma ko te loolu mënoon na ñàkk ministre de l'intérieur ak lu mu lu ñu aali nguy wax dëgg yàlla ba mu fiy nekk ànduma ak moom mais yu waaye di mosoo ko cee dégg Ablaye Daouda Diallo mosoo ko dégg ci waaye di même Mbaye Ndiaye mi nga xam ne sax moom la gars yi doon gën a gën gën a ree ci yenn affaires yi mosut mosoo ko dégg ci yu waaye di man nag dama jàpp ne li Aline procureur Aline Ndaw waxoon nee na bi Antoine Diome di nekk substitut procureur daf ne ko euh, man ñaari patron la am yow ak président Macky Sall mu ne ko moytul Macky Sall moom homme politique la lu mu dugg mën na cee génn te yow magistrat nga te un bon magistrat mais nag wax dëgg yàlla lu ëpp day bëgg a tuuru yi mu fi defagun ci loo xam ne nga mën cee dut baaraam xeep ko wala xeeb suñu république day bëgg a bëri te Sénégal gi nag amuñ lu dul moom suñu institution yi amuñ lu dul moom kon waruñ cee jeter des discrédits des discrédits nag bi ci gën a bon mooy ki nga xam ne mooy autorité bi bi ko war a incarner ba pare ñëw di ko di ci seetee discrédit mooy di wax loo xam ne bu ñu ko xoolee du doon dëgg loolu baaxul ci kilifa comme loolu dafa am nag man dama jàpp ne tey tubaab yi ñuy wax tey waruñoo ëpp jom waruñoo ëpp fit waruñoo ëpp fulla am na loo xam ne ku ko defoon France dangay ngay kon moom damay euh, Macky Sall nag man bon faluma ma ko wala nanga mais sama njiitu réew la sañ naa koo ñaan na dàq Antoine Diome loolu mooy dëgg. sa mission sa bi jeex na. kon jeex na <laughs> mbokk internet IYTV ñu leen di jox beneen numéro bi peut-être mun na doon dimanche prochain incha allah bu neexee yàlla jaajëf jërëjëf